foofu la mais madame Thioye bëggoon naa la euh, wax benn affaire muy sëy yi nga xamante ne nii dafa am problème sëy yi nga xamante ne nii dematul fenn dañu coog ba ci yàgg ñu ne bii am na coow bii am na coow tey jii en tant que jigéen di sëy nekk ci di muñ lan ngay conseiller yeneen jigéen yi nga xamante ne ñu ngi dund yooyu problème. waaw maman nag laal nga fa am importance vraiment. parce que problème au ménage yi moom macha allah yàlla def na ni bari na. waaw yaa ngi wax sànq stress nga mujjé fofu mhm. parce que euh lima la wax rek jàmm mom mhm. du doy. té ñun ñoo wara gëna gën moytu problème yi ci biir kër yi. Mhm. ndax maman dafa am lo xamné duñu yobbu fenn. voilà duñu yobbu fenn surtout ñun jigen ñi. jigen dama bëgg maman muy moytu bu baax influence. man bëgg manam am naa xarit. Mhm. am na lii. Mhm. man awuma ko. il faut ma am ko il faut ma am ko. sa jëkkër bu ko amulee. muy indi problème voilà wala nga am tey problème bu ndaw. waaw man sama jëkkër di dama ne ko woon na ma xottil benn jesneer bu baax semaine bii dama am mariage. Mhm. mu bañ. bañul la gis na madame Thioye sol na jesneer même bu dul loolu am nga sa programme mu jesneer rek maman. tey laaj nga ko amul xëj na fa nga ko fekk la. noo comprendre circonstances yi nga ko fekk ba tax munu ko. Mhm. yow la ngay daal di comprendre rek mooy. sant wax naa bëgg naa ko te mënuma ko am. Mhm. su ko defee au lieu mu limité wu ci muñ parce que maman ñun dañuy wax tout temps muñ leen. muñ leen muñ leen ñuy wax jigéen na muñ bu duggee ci biir sëyam. Mhm. parce que li tax ñu ne takk rek ak takk ni mu neexee. ñu ne takk rek aussitôt ñu naan la na nga muñ mais lan si gannaaw loolu ba tax ñuy muñ lool. dañoo waroon di xalaat ci loolu bu baax a baax parce que mhm. inconscience dëgg moom lañ ciy demee. mais muñ boobu déjà facteurs yooyu yëpp daf ci bokk parce que tey ki ngay àndal bu la waxee ne mënul. tey war nga xam ne jarul sax nga koy laaj bu ma mënee. loolu am na nga laaj ko déjà xam nga ne ku ne bëgg na sa jabar buy génn dàq jabar yi ñëpp. ku ne bëgg na sa jabar buy génn gën a sañ sa jabaru ñëpp. Mhm. tey bu fekkee ne sa jabar bëgg na dara mënu ko am ci yow man je me dis que ne c'est parce que yow amuloo ko. Mhm. en toute sincérité peut-être am na ñoo xam ne leneen la leen yàlla bindee mën naa ne la plupart du temps. ñi nga ciy gis ñu am volonté def la ñu doon. te góor bu bëggee sax da lay defal. da lay defal da lay defal da lay yéene. Mm-hmm. maman ku sañoon li mu yor mooy gën. nañ ko seet ci lu nekk. Mm-hmm. ku sañoon li nga yor moo fi gën. kon tey xam naa ne góor ñu baax ñi may dégg te ñëpp a baax macha allah. Mm-hmm. du ñàkk léeg-léeg ay rëq-rëq mais tout le temps ñu jéem a complété wante euh, maman dañuy ne ménage loolu la sëy jigéen ak ak ak góor. dañu war a complété wante. tey bu fekkoon ñun ñëpp peut-être yàlla dafa defoon ku nekk tey li doon doy mu jox la ko xëj na du wax pour sa morom ñu denk la na ko muy war a demee neneen li tax mu boole ñu li tax mu def kii lii def ko keneen ki leneen ki mooy lay xamal ne ñun dañu war a ànd pour compléter wante. Mhm. ku war a ànd nag pour compléter wante kooku dina gis lu metti dina gis lu neex. Mhm. parce que ànd bu ne lool moo ci nekk. ñu bañ ñu góorgóorlu parce que tey boo defee noonu ñu muytu xarit yi. Mhm. parce yenn xarit duñu ay xarit. maman nga ñaan sa jëkkër mu ne la amul. sa mm, eh, copie nag ci whatsapp bi naan la ba léegi maa lay envoyé message tontu nga ne ko xanaa diw laa doon waxal ma koy ñaan lu ma bu mariage ba mu bañ. mu ne la da ngaa ñàkk fayda. waaw yaa ñàkk fayda. yow diw mi nga xamante ni moos am na genn wala nga xam ne bu génnee fii li muy dépensé si biti. te araam fuddal na xamu ci dara moom dafa amul sax loolu. Mhm. ku la xeebal li nga yoon yàlla xam na ne buñ ko nattee li nga am am ko. dëgg la jigéen ñi dañ war a consciente torop ci loolu. Mhm. nañ bàyyi sëy yi ñuy dénk. man bëgguma sama yaay sax xamal xam nga lu tax ma man damay ni ñun pratiquement. dañu war a am jom bu baax ndax ku juddu fekk sa yaay fa mu toog mu toog fa jóg fa. Mhm. war nga war a muñ ba fam la teg nga toog fa ba sa doom jógee fa dem feneen bala fa. mais xale yi léegi ñàkk nañ kees ñàkk kees goo xam ne est-ce que loolu ñu ngi koy xool ba tey. moom laa lay wax la dañoo war a delluwaat ci suñu valeur yi bopp. Mhm. parce que am na am na moment loo xam ne. boo ko xoolul ci sa yaay. Mm-hmm. Euh, rëyloo woo ko ci fi nga bokk. nga xam ne yow doo xool lu bari. Mm-hmm. te ku dul bañ dara. Mm-hmm. kooku nu la neex nga mel. mais nit dafa am nit nu muy demee. dafay suuraale lu baree baree baree bari baree man boog ci liñ ma jàngal. parce que man damay ne maman yëpp yem. te sama yaay sa yaay yaayu keneen ñëpp a yem. benn yaay bonul ku ca benn yaay bonul mais maman bu ñu xoolee société bi ni muy doxee. maman yi dañuy sot. dañ waxante dëgg mhm. ndax ku ci sa jëkkër xur yi nga woo sa yaay wax ko ko sa yaay am na lu mu ñoon loo xam ne boo demee yaayam sax yëgu ko dëgg la pour wax bi leer mhm. tey yow nga jël la la naqari nga exposé ki sa yaay mhm. mu bokk ko ak yow dootul demee xel xol lay demee dëgg la mu wax la ci loo xam ne tey yow mën na am sax boo ko appliqué mën nga ko topp ba sa sëy tas sax mhm. su ko dee moom dootul gis deug day geuleum mhm. te ku ne xamna mag mag la dañu am sen temps dañ koy dépasser ndax lañ muñ ñoom moo ëpp ñun non duñ non seulement comprendre tuñ mais mama muñ mo fi jeex muñ lañu ñu fas yéene def mhm. pour ñoom ménage da nga wara a dugg rek muy neex di neex di neex di neex ba kañ àddina deful lolu adina deful lolu parce que tout le temps en toute chose il y a des hauts et des bas loo gis ci jamono amna lu neex am lu nakari kon nak tay buñu ñu dugg ci sëy dañu war a sóoraale paramètres yépp nit bu ngeen àndee yàlla yokk ko nangul ko ko mhm. moom it mu yéene la ko ngeen ànd dem mhm. bu ngeen àndee yàlla yàlla néewal ay dooleem mhm. boo amee mottali ko ngeen ànd ba ba àjjana parce que sëy bu rafet àjjana rek moo a kon jigéen bi nga xamante ne nii day xam ne jëkkëram amul dara bu jëkkër ji wàccee rek mu profité ko jox ma lii jox ma lii du ko bàyyi sax mu añ wala mu jox ko ndox mu naan boobu jigéen nan nga koy conseillé damay ne mama baaxul ndax euh, góor ak li mu mën a yendoo ci coono ku ne xam na ne ñëpp sax fi mu ne ci coono la ñuy yenn ndax benn jigéen toogatul waaw mais bu ñu wàccee ba ñu dajee ci kër gi mhm. war nañu am benn comportement boo xam ne dina tax ba ku xëyaat dem mhm. dinga yàkkamtee ñëwaat ci kër gi dafa am importance mais jëkkër ju ne salaamaaleykum ci kër balaa yees yi nga ne ko mm, mm, mm, ki doon coupé robinet bi jëmoon na fi mhm. facture courant baa nga ne jàppal na ceeb bi jeex na. waa yaa ngi noonu di di reer waaye xamal ne soble bi jeex na. <laughs> du amati appétit pression dootul am sax appétit lekk. Mhm. te xam nga yooyu yëpp day indi jéppi wante. dëgg la day indi jéppi wante te jéppi wante fu mu am rek. dootul neex. loolu loolooy waral ni xale jigéen ñi koo gis mu ñu takk ko tey bu subaa ñu fase ko ndax lan dafa dul muñ. du muñ muñ moo amul maman parce que nee la lu neex rek lañu dem seen pour ñoom ménage neex la rek ba fin lu ci naqari lu ne bokk ci rek na ku ne dem. madame Thioye wax nga lu am solo. Mhm. muy jigéen pour moom bu sëy jee rek surtout génération gi mm-hmm. lu neex rek lañuy la ñuy dëkkee ba keroog ñuy dee mm-hmm. est-ce que loolu noonu jaadu na ci jaaduwul man su ma dikk que ne jaaduwul parce que matériel bi ñu jël gëm ko la mm-hmm. ndax jigéen ñi léegi euh, koo ci takk te mënoo ko wutal cheveux bu baax indi nga problème koo ci takk te noo koo jëndal ci gestionnaire yee ci affaire yu baax yi ndi nga problème mais man ma doon cooy nga baal ma am na fu tuuti fu mu bëggoon laa te sànq danga am solo muy lan pour ñoom léegi ñuy sëy léegi pour ñoom tant que demuñu si sëriñ ñu jàmbal leen rek ah duñu mën a nekk à l'aise te dégg naa ñu ne ji góor li koy yor mooy feem yi ngay def daal parce que góor. ak jàmm bi d'abord ak jàmm bi d'abord parce que gis nga moment feem bi ñuy wax jàmm ji daf ko ëpp ci. ci kër ak complicité aussi comme mooy complicité bi. Mhm. xam nga dem naa ci émission bi passé ba ne la man ak sama jëkkër communication des consciences la ñu traité parce que macha allah tey yow da nga nekk góor nga comprendre ko compréhension boo xam ne mhm. bu tëddee sax di xalaat dara nga ñëw wax ko ko dafay am c'est magique mais lu existe la mhm. te loolu jegewoo rek la mhm. ndax nit di nga nekk bokk ak moom nekk ak moom jeex ci moom ba nga xam ne. Mhm. lu mu def xam nga li wax. sama caméraman jëlal ma fii ma wax la. madam Thioye bi dafa mel ni dafa nopp monsieur nopp ko noppandoo dafa mel ni moom ci ay yuqam la nekk madame Thioye eggali li waaw loolu moom. Mhm. loolu moom jaru sax ñu koy wax. ndax monsieur Thioye moom moo la gën a xam. fi mu toll ci man nee naa ko man xolal lu mu xalaat laa wax lu mu xalaat même bu ma ko waxul xam naa. mais lii jafe naa. mbokk internet parce que parce que en ma vrai ji sax nee nañ noonu la ñuy mel. mais nag dafa am loo xam ne moom yàlla la duma la. Mhm. te bëgg bu sincère bu ne noon la war a mel. noonu la war waaw man man bañ naa góor sax boo xam ne bañ naa jigéen sax boo xam ne day xaar ba jëkkëram yegg ci lim bëgg dëgg mu door a xam ne lii la. ndax ay nit bu leen yàlla bëggalee war nañ mën a complété wante ci loolu. Mhm. à travers leur pensée ku nekk di xam li nekk ci sa. Euh, ji xelu moroom en quelque sorte. kon nag loolu war nañ ci góorgóorlu bu baax chéri man bëgg naa ñëpp nekk si jàmm. Mhm. bëgg naa sa yëpp neex. Mhm. bëgg naa ñëpp ku ci nekk rek. mook sa alaaji yi ngeen mel ni mburu ak soow ndax problème yi bari nañu mhm. te pratiquement dara du solution bi rek lu dul loolu nañ bàyyi matériel bi fële mhm. ñu ubbi xool yi yaatal ko te xam ne àddina yàggul ñu sëy ngir suñu njaboot yi yaatal ko waaw xam ne àddina yi yàggul loolu la madame Thioye wax mais madame Thioye moom la ñu àndaloon ci li nga xamante ne moo di émission nekk nu jigéen dañ koy bàyyi mu daal di tàggoo rek te wax li nga xamante ne moo di numéro am ak fi mu dëkk ma daal di tàggoo mbokk internet Sénégal ma leen di ma remercier ma chérie encore une fois. Mhm. Euh, de leen wax ne temps bi ma leen le plaisir la ci man. Mhm. voilà di leen ko mastawu yéen tamit parce que xamna vous avez trop de choses à faire mais depuis ñu tourner suñu première émission ak légui pratiquement. fu ngeen toll yéen a ngi may nemmeeku. Mhm. yéen a ngi xool ci lu ma ne. yéen a ngi jéem a ay partenariat ak man. Mhm. xam naa ne li leen attiré ci man yàlla bu ci yaakaar tas. lu ngeen séentu ci suñu ànd bi yàlla na ko yàlla mottali. yóbbu ko fu fu fu suñu njottu sax yeggul macha allah. di remercier samay clientes comme ni ma koy waxee. Mhm. à travers la diaspora. Mhm. partout dans le monde ak euh, sama sama sama mbokku dëkkaale sama mbokku dëkkaale africain yi. Mhm. sama sénégalais yi ak sama mbokku dakaroise yeeg ñëpp macha allah. sama mbokku jigéen yëpp dal ci biir. waaw gis na niñ may sotle gis na niñ may jàppale gis na ni joxé importance sama ay bagages. té loolu ma leen koy santé vraiment parce que buñ ma jox ton bobu importance duma ñëmé di remercier sama sama mama may ma damay wax luma ñor. waa damay wax rek ni mag ndaw nga may ma lu ma ñor laay wax parce que nee bu la lekkee alam nako ko gërëmee coy coy waaw loolu am te feccu liir bu neexee nday ja moo tey ci mbagg ya loolu amna. na waaw sama monsieur sama monsieur dafa kontaan si li may def mhm. daf ma ci encouragé tout le temps mu ngi gëstu ci li may dox tee ngaa bàyyi ma sàllandi ko yaa <laughs> mu ngi mu ngi gëstu ci li may def di ma ci encouragé di ma comprendre trop bu bëggee jot téléphone sax fekk ma nekk ak ay cliente daf ma naan yeggal lil ak ñoom ba paré il me comprend tellement ci lolu te dama ko koy rendre grâce ndax déjà nek fi mu ngi Italie mhm. ku ne xam na ne seen temps bariwul ku ne dina am benn temps boy bëgg jot sa madame yow tamit belloo mhm. waaye daf koy comprendre tout le temps waaw macha allah mhm. di remercier sama maman chérie maman Fatou Ba di remercier sama tataay sama papa bi nga xam sama papa la ba paré may bébé <laughs> may bébé muy sama bébé gis nga maa ah, yaayam yaayam la ma muy sama xarit muy sama xarit vraiment maa ngi koy remercier moom it bu baax di ko ñaanal ñoom ñëpp di leen ñaanal ak sama goro bu baax bi ma dese macha allah muy mhm. sa mère Ndeye Fall muy sama yaay borom kër di sama di sama xarit lool Moussa kooku bu mu duggee ci moom. Mhm. damay ragal sax nga dagg ma. dama koy ñaanal dama koy ñaanal yàlla dama koy ñaanal yàlla. ndax goro du ko gën. Mhm. dama sëy yaay laa koy wooyee boo ma fekkee ak moom da ngay ne moo ma jur. macha allah lépp lu mu yëkkati man la ko yéene. lu baax lu muy wax yaakaar na ne ci man rek la jekk bi